lii lépp ci xeex mbon la rek xeex mbon xeex mbon nag moom ku ku yobure góorgóorlu ci ñi mën a yalwaan yor seenu këll nañ ko yor ñi mën a takk njëllub Seydina Ousmane Sonko nañ ko takk ah dégg maam fu waaye mën taxaw bees këll bi ñu teg ca dara def ko ñuy nekk ci diaspora lu waay mën def tawarkal ñu ngi seetlu yor na yor yo liggéey na quinze ans ci état bi te mos a ci dër moom nit te ay nit ak ñi fi di sàcc rek liñ dundee lépp nañ ko sàcc bañ soxla te moom mos a sàcc dara waaw te xeexum bon moom xeexum bon ku koy def ak noo ko mën a defee ba xeex ko rek baax na yonent bi waxoon na ne man raxa minkum munkaran fal yuqayyirhu bi yadihi fa in la yastatix fa bi lisaani wa in lam yastatix fa bi qalbi wa dalika ne moytu diggu leen jaxasoog ñu bon ñii waaw ndax ñu bon ñii mooy sàcc yi seen ak njublak di sàcc waa système bi wa man yusaarikuhum xunaa fiihi sihim yakun zarikahum qadan bi dulli waxoon na it wajtanibu xultata haulaayi li annaha min aqbahil askari moytu ni ku leen jaxasoog ñu bon ñi mel ni waa ndafa ñi kon daa am kuréelu bu baax ak bu bon xisbullah xisbu seytaan ala inna xisbullahi humul muflixuun ala inna xisbu seytaani humul xaasiruun lii rek la ala inna xisbu seytaan humul kon lu baax am na lu bon am na ñi féeteeg Seydina Ousmane Sonko ñoo ñu baax ñi ñi féeteeg feneen ñoo ñu bon ñi